giroog te waasanaam saña nga noo gontum samkeer jira nga te wannaame loola nga te yàlla yay boob yàlla wasokeer e kaaja dam looli fa gomma faatu seytu te talaawa duy loo ba silne ndil ba toog fo a lang ñaan le fu yëngule do ya xam wasila malaaka u sëriñ yaa naan naame gaaj le doom a doom jaani fa bisong pour rek ño refiro ken nu leng na mi fa jaaga ci yaa majiid u gore jaab ka roog yaa muɓi yaa andim ke jara yaa andim ke jara kon joko njal roog fu wo tuleer refo mota penku wore kursu lemi keke taxu ɓiya lool la wuya yooy magnifique c'est magnifique ah ñu ngi koy wax euh, Mia Jaxeer Euh, ci son Mia Jaxeer bi nga xamante ne ñu ngi koy may képp kuy séeréer euh, ci leen di ci la ñuy jaaree rek laan leen di nuyu ñun waa team Weekend Start xam ngeen chaque samedi matin nag ñi lay demee avec la grande team au complet nga xam ne dama leen di nam di leen bëgg di gis à chaque fois donc tout simplement je vous dis bonjour et je vous souhaite tout simplement de passer un très bon début de week-end ah donc ku yeewu rek jëlal sa petit déjeuner ndànk rek nga jàkkaarloog team la team bu comme à l'accoutumée waaye suñu yaay dafa nekk nag balaa ñuy jiital nuyoo bi ci kenn yéen téléspectateurs yi nuyu naa leen ba noppi nuyu waa régie Eva nuyu naa leen bu baax a baax ndax xam ngeen ne ku xam jigéen xam ne 8 mars dem lañ doon célébrer li nga xamante ni mooy la fête wala li nga xamante ni mooy les droits de la femme donc damay njëkkee nuyoo bi ci ki nga xamante ne mooy suñu yaay ma gestu daal di seen fee daal di gis benn jigéen bu jàmbaar yo loolu nekk ci caméra yi je suis fière d'elle ah je connais pas mes petits bébés. waaw waaw ñooy sa bébé de aw. Ah maa ngi leen di namoon naa leen. ñoo la raw yaay. di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi. Mm-hmm. di wax ni tey moom xam nga exceptionnellement parce que comme mercredi euh, mënu ma woon ñëw. dëgg la ndax dañoo amoon yeneen programme. Mm-hmm. donc euh, dama ñëwoon seeti benn euh, mbir daal bu doy waar. roq bu doy waar. Mm-hmm. mi ngi fan kër Soxna Jaar. naa la bàyyi rek nga dugg ak moom. ayca après ñu ubbi ko. léegi xam nga lu may gënal man. Mhm. ñu nuyoo ñun ñëpp. waaw bu ko defee ñun ñëpp ñu xoolandoo ko. parce que yaay loo génnee moo gën loo génneewul. kon alhamdulilah ayca bu ma jógee ci yow damay daal di def honneur aux hommes mariés ah ndax mine nag mooy kilifa kër gi moom it. Ah, di chérie Eva di bàyyi bébé grâce vraiment muy bàyyi waaram macha allah ñëpp naw ko ci li muy def correct sympa et tout il s'appelle tout simplement Merci beaucoup. Aïcha donc Samira merci à toi mais je a dit 8 mars c'est le de mars. Moi, eh je redonne ça à, à mes sœurs d'amour. les je vous jël leen yéen a jox nga leen ko. merci Aïcha kon euh, Choupa jëlal nuyoo bi ndeysaan. waaw noonu laa koy def euh, di ko jëlaat avec euh, les bras ouverts. Mm. ndax sunu bës le 8 mars. Mm. comme que góor ñi nangul nañu ko rek ba ba ba ba bàyyee ah, ñu ko. malgré que démb boo génnee góor jigéen ñi rek nga gis ñu otesu. macha allah ah, waaw jigéen ñëpp otesu ñëpp kontaan donc noonu laay def di nuyu ñuy seetaan di leen wax dalal leen jàmm ci seen biir émission Weekend Star comme d'habitude nuñ koy defee rek fas yéene leen bégal de l'utile à l'agréable fas yéene leen bégal nag wax leen événement yi fu mu nekk on commerciaux incha ñu ah waxtaanee ko mag ji oh. di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau di am contentement jàkkaarloog sama yaay ji nga xam ne dama ko bëgg suñu yaay ji sax xaaral ma xaaral neexal ko Fallou ziar nañ la mhm. la jox sa wàccuwaay ndaxte man waa Sœur d'Ébène gros bisou Mister P Mister J maison Mister P les jumeaux mhm. les inséparables ah lay wax sax waaye comme euh, Pi ni mu ko waxee dañuy def honneur aux dames aujourd'hui mhm. donc dañ koy daal di euh, passe nuyoo bi ki nga xamante ne si une petite ñëpp ràññee ko ci li nga xamante ni mooy seen petit gars baat bi neex loolu waaye elle est pétrie de talent que tu le saches ou pas petite sœur bonne fête à toi bonjour merci bonjour may souhaiter bon fet à tout le monde yéen di ko commencer ci ñi nga xam ne tey jii mooy suñuy maman. Mhm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen souhaiter une bonne fête ndax tout femme tey jii rek euh, mooy lii fet bi sa fête la. Mhm. di leen souhaiter bonne fête à vous aussi ñi nga xam ne bokk na ak yéen plateau di nuyu am chers téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safoo seen émission bi nga xam ne mooy Weekend Star fii di jàll en direct sur la TFM waaye xam ne ni que ñoo leen gën a bëgg Weekend Star nii lay demee émission bu fun et jeune samedi incha allah ñu toog rek ngir bégal leen. Mm. macha allah sa blanc baax na sa euh, baax na waaye euh, xam nga kër gi nag dafa am koo xam ne mooy mixé ah mooy xorom ci cin man xorom ci cin laa ko tuddee parce que bu bëggee ñun ñu yeewu. Mm. xam na fu muy jaar il se nomme tout simplement Dji l'ami des jeunes filles. comment ah, vas notre Dji national. Ah, Dji from Dji bu Côte d'Ivoire Yamoussoukro. Pape Sam tijji lii ma xool. man nii laa leen nuyu oh beneen beneen dañuy sargal oh oh oh oh ñun jigéen ñi oh nañ leen baal lay waxal waaw waaw ah kon doomu jàmbur ji kuy door jigéen. non on t'adore on on t'adore ni nga ni nga ni nga débuté affaire yi sargal ñu. a ah franchement on adore et je sais que téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp en tant que femme mère maman jeune fille petite sœur ñëpp adoré nañ li nga ñu def. mois bi seen mois la. c'est le mois de mars et en dehors de ça aussi les PNJ ils sont nés en mois de mars samedi ah, prochain. le 16. voilà le 16. c'est le ah, musée. <laughs> Eh, eh, ak maman Adja bi ah, ah, la le kañ maman. voilà lañ koy fête loolu yaay dañ koy fêté Aïcha ji ñu bàyyi la nga terminé. voilà donc euh, di leen souhaiter bonne fête hein, à toutes les femmes euh, qui nous regardent actuellement. Mm-hmm. voilà donc euh, j'en profite aussi pour faire mention spéciale à la mienne elle se nomme tout simplement Mamie Ange en mm-hmm. train mm -hmm. de nous regarder actuellement à toutes les mamans bien sûr qui nous regardent gros bisous et bonne fête à vous yaay dafa fort quoi. dafa fort yaay dafa fort maa ngi ñaax tamit euh, xale yi. Mhm. ñu gën a jàpp ñu gën a fonk seeni ay yaay. Mhm. parce que c'est énorme quoi. Mhm. l'amour d'une mère c'est c'est c'est incroyable. c'est incroyable franchement faut le dire man ah loolu nag laay ñaan xale yi quoi. ñu gën rek ngay topp. voilà yéen rek la ñuy topp. walaay dëgg la ak ay c'est clair. Aïcha mi ngi ne woon macha allah donc euh, ñu koy may képp kuy jigéen ah tu sois suñu yaay. suñu sœur suñu euh, jarbaat ak lépp loo xamante ni daal jigéen la tey xam leen ni bés bi ñun dañ koy fete ba la ñun ñooy xool ba jour bu ñu neex le 8 mars lañu wax mais ñun ñooy xool man sama tout blanc njaay bi ma génn bu ngeen ma xoolee rek xam ne tey euh, tey jigéen bi moo wax am nañ fi aussi pas mal de dédicaces yoo xamante ni ay góor ñoo ñu ko jagleel ñun ça va venir tout mais suñu yaay booy dafa demoon doxantu fi nga xamante ni mooy kër soxna jaara yaay nga duggati fu baax ndax yow foo laal moo gën foo laalul fu doy waar. ñu dem xool ku ñëwaat wala. nañ dem ñëwaat ayca Samba may ñi ñu xool loolu ñu dellu si léegi à tout à l'heure وجاءت كل بحمد وسكون إلى قليل المؤمنين وسكون Euh, salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci sa tur sa sant euh, man la maam Aram Mbacké ñoo ngi fii euh, centre commercial Touba Sandaga tey nag dama ñëwoon pour won leen tissu yu rafet yu ñu am présenté leen am nañ fi toutes sortes de tissus donc dañu ñëwoon tey pour won leen tissu yu rafet yu ñu am yëpp ñu ngi fii au centre commercial Touba Sandaga rez de vingt deux cinquante 58 ñoo ngi aussi euh, avenue Lamine Gueye en face pharmacie Gambetta ñoo ngi aussi euh, au marché HLM euh, si route nationale bi voilà ñun nag dañuy jaay toute sorte de tissu am nañ tissu yu rafet tissu yoo bëgg rek soo ñëwee fii da nga ko fiy fekk am nañ des brodés des lafaya des penjab des tissus xew des brodés autriche voile vax pour ñuy xew am naa yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp am naa ko. Adja comme ni nga ko waxee fii moom am nañ fi ay tissus doy waar instant bi bii lafaya la lafaya original gisoo tissu bi coton original la voile asli original broderie bi gis nga c'est super broderie bu nice la am am nañ ci couleur yëpp yëpp yëpp en plus c'est moins cher waa Adja bii moom brode autriche la brode autriche original la yaa ngi gis ni brode bu nice bu léger. original nii pour ñuy xew ngénte mariage wuy ji xew juste pour loolu la mu ngi nii parce que dafa rafet raffiné am na couleur yëpp rouge beige am na couleur yëpp bi aussi euh, waaw bi euh, genre broderie la mais dafa mel ne tulle waaw c'est plutôt pour yenn mariage xam nga waaw tissu bu rafet la nii vert bi ak ñiy tudd. waaw gis nga blanc bi moom ku ko sol sa ngénte rek da nga fiy toj gis nga lii. ba pare c'est trop léger. brodé yu oyof laa am. am na aussi façon bi bi aussi beneen façon la moom tamit brodé autriche original la. ngi nii fii daal yaakaar naa ne ku fi ñëw. di nga am lu baax. ndax ay sañse rek ñoo fi nekk. orange bi moo ngi nii comme yëpp rek yëpp dafa léger. brodé autriche original bi HKG la HKG. bi aussi Adja HKG la bi beneen façon la aussi bi aussi HKG la original waaw bi moom ku ko sañse moom danga fiy toj <laughs> waa Adja comme ni nga ko waxee sànq wanoon naa leen brodé Autriche lii nag moom lañ naan brodé pirxa bi brodé pirxa original la brodé pirxa boo xam ne gis nga soo ko gisee sax da ngay jàpp ne brodé bu cher la alors que c'est moins cher comme li ma wax rek sama boutique moom fii ku fi ñëw ku nekk di nga am loo yor rek di nga fi mën a solo c'est abordable ñëpp fi mën a kii mu ngi nii gisoo trois pièces la c'est sept mètres cinquante au total sept mètres cinquante mu ngi nii gisoo gis nga col yi ni mu feesee pen jab original jaa nag yaa ngi soog laal bii nag mooy exclusivité bi bii lañ naan HKG bii brodé HKG bu bees tàq la lii moom man rek maa ko am soo ñëwee fii rek kër soxna jaara rek nga ko fiy fekk mu ngi nii brodé HKG bu bees tàq la bu rafet en plus HKG en plus c'est moins cher. macha allah macha allah tissu yi rafet na ba pare dafa tombe ak période yi nga xamante ne mooy euh, weeru koor bi ñuy jëm si yaay booy tissu yi ay HKG mais kii ay xeetu tissu rafet na yaay. non franchement dinaa ñu ñu naan loo yàgg dox yàgg gis. Mhm. franchement c' est une jeune dame. que franchement ba nga xamante ni ba ma fa demee j' vraiment émue. macha allah parce que xale la. mais xale bi macha allah bu am jom. Mhm. donc euh, elle s' appelle Mame Aram Mbacké. di ma di madame mhm. vraiment ba ma fa demee gis naa fa xeetu bagage yoo xamante ni dama doon wax naan lii xam nga man damay dem Autriche. damay gis affaire yi mais dama leen ne lii yëpp kon yéen dangeen ngeen dem ba foofu di ko indi. franchement elle a su traverser les continents. de l'Europe de l'Asie de l'Amérique pour lan indil waa Sénégal indil waa diaspora. Mm-hmm. indil le pays africain. ñun suñu mbokk jigéen ñi. surtout ñëpp la ñuy jaay macha allah. jigéen ñi nga xamante ni fépp ñu nekk ci Sénégal dañ leen indil ñu nekk ci diaspora bi ñun leen indil ñëpp qualité boo bëgg. Mm-hmm. qualité tissu boo bëgg. soo fa demee da nga ko fay fekk. dafa mel ni yaay li nga sol fa la jógee de. man dégg dem lay wax nee leen ñàkk faa doxantu wóoru damaa dem yàq ma yaxet. macha allah li li nga sol dafa mel ni man j'ai l'impression que c'est du coton. c'est du Lafaya original. ah oui c'est original. matière non j'ai appris. franchement euh, xam nga lu ñu naan euh, soo demee. Mhm. d'accord dinañ la expliquer. loo xamul woon sax wax dëgg yàlla di nga ko xam. Mhm. dem naa ñu expliquer ma ma xool. ñu ne doo fa jógee nag te doo sañse. dëgg la.

mais la layaane c'est du coton non ça c'est du coton 100% non matière bi moom boo ko laalee moom doo ko. vraiment c'est du c'est du c'est du coton original. original maa ngi koy dégg yaay moom la ñuy jaay. non lii du aska HKG beneen brodé la. moom la ñuy wane fii sa c'est du lafaya en coton. d'accord oui bii nga gis nii sax bii mooy premier choix bi. macha allah léegi si biir premier choix bi am na deuxième choix aussi. parce que ku si nekk rek dañuy ñëw fekki par rapport ak sa doole. Mhm. soo ñëwee wax dëgg yàlla. Mhm. lépp loo bëgg di ko fa fekk. Mhm. te en plus li ma wax ba wax mooy peccum mbir du neexee. mbay jaajëf fekk sa mbagg ja la kon ñu remercier kan maman Ajaratu Daba Diané. lépp moom la mooy seen yaay. liggéey bi du tollee fii lépp moom moo ko commencé moo ko initié. bàyyi leen ne leen magasin yaa ngi noonu. macha allah am nañu magasin au Touba Sandaga rez-de-chaussée donc si Lamine géey bi aussi am nañ fa magasin. Mhm. boo xam ne mu juste en face euh, la pharmacie Gambetta. donc aussi au marché HLM. Mhm. donc foo si fël rek doo laajtee kër Soxna Jaara dinañ la jox. adresse bi. Mhm. jox la numéro téléphone yi. ngeen dem ngeen seeti leen. dañoo bokk ci femme battante yoo xam ne dañ leen a war a. Ah, maa ngi dugal léegi maa ngi jox Eva léegi benn photo. Uh-huh. pour wax ko ni vraiment li may wax waxu femme battante. Mm-hmm. moom ay ay mu ngi nii photo baa ngi nii. association des femmes association des des des braves dames. les ñoom ñoo ko jox démb si 8 mars bi. Oh, ay collègues jigéenam. ay xaritu jigéenam. ñoo ko honoré. Mm. jox ko diplôme bi ndax lan macha allah. liggéey. Mm-hmm. liggéey rek donc daal liggéey rek moo wóor. Mm-hmm. kon jigéen ñi ci kaw ci kanam. Mm-hmm. donc euh, li ma mën a ah. loolu tamit jàmbaar nga. ah macha allah sama yaay war a diplômé yow. ah sargal ko sax dañ la war a non dañ may def diplôme vaisselle yi naa leen woo. Ah. sama mbokk jigéen ñi def vaisselle yi. <laughs> yow bu ñu la joxee diplôme vaisselle dañ lay joxaale diplôme sañse ndax yaay ñu laal euh, lafaya bi à 100 pour cent coton. nga sañse ko mettre ko en valeur. daal di péerlal sa affaire col bi ñun daal bëgg nañ xam ñi seetaan tam bëgg nañ xam li nga xamante ni mooy numéro yi mm-hmm. ñu noté ko euh, bu ko defee ñun tam ci weeru koor gi ñu daal ci sànni rek da war a taxantu man waxuma loolu parce que li gën a am importance mm-hmm. mooy ñoom dañuy def la vente en gros macha allah ñoom fu mu toll nii ñi nga gis ñi jigéen ñuy teg seen table di ubbi seen ay magasin mm-hmm. di ubbi ñoom ñoo leen di jox muy jaayaat mm. doo soxlaa tey liggéey nga ne bëgg naa dem jënd ay pisu liggéey soo yeggee dañ lay defal prix en gros ñu jaay la nga dem teg nga daan sa doole. Mhm. tey doo amee sa xew war a teral say goro teral say njëkke teral say bàjjen. Mhm. koo bëgg teral soo demee kër Soxna Jaara à bas prix ñu jox la loo xamante ni tey di nga fa mën a def li nga xamante ni moom nga bëgg. macha allah donc ils ont vraiment telement de tissus yoo xamante ni. mu ngi nii am nañu ay brodé Perca original. Mhm. des Lafaya brodé Autriche HKG original. am nañu ay cotonnade voile brodé voile suisse. voir Asli donc am na benn boo xamante ni moom pour ma wax ko damaa ree ba sonn. déedéet kay on l' appelle voile mini mini. mini mini. mini mini. mini mini mini waaw. am nañu ay penchap en coton am nañu ay carré de soie coton léger. des basin basin designer basin coton lépp am na fa. donc tey doo décidé rek ne tey. war naa mën a ñëw teralaate. Ah, war naa mën a faire plaisir. waaw cadeau sax amee naa mën a sol sama yaayu joxoon. Mm. Kër Soxna Diarra c'est la bonne direction. macha allah donc je vous donne les numéros de téléphone. numéro yi ñu noté bu baax a baax ndax ñu ngi li ma la wax. tu si Inde tu si Thaïlande tu si Autriche. original si bëgg. Mm. soo fa demee fa nga koy fekk. macha allah donc vous prenez les numéros. si jëlal jëlal sa portable. ah ñëppay jël téléspectateurs yi jël leen te xam ne c'est le 77. 77 c'est le 77 278 73 17. aussi on a le 77. 570. Mm.

maa ngi koy ñaanal jàmm. Mm-hmm. di ko ñaanal xéewal di ko ñaanal une très bonne santé. macha à tout à l'heure. Yaay Boy ñun plaisir la ñuy am à chaque fois di la gis parce que déjà rek gis la ci sa beauté sa taar ak sa dicton bi ngay waxee mm-hmm. macha allah ah, madame Ngom la donc ñu koy ziar bu baax a baax di ko remercier ci ki nga xamante ni moom la demoon seeti muy kër Soxna Jaara mm-hmm. waaye xam naa ne ñi seetaan dinañ dem foofu ndax sa tissu am na classe qualité beeg lépp a ngi fi Yaay Boy ñun am amuñu sa fay. buñ jogee ci kër Soxna Jaara mm-hmm. n'empêche li nga ñuy tegal li nga xamante ni mooy chaque samedi macha allah yaay. nee naa gars yi ku ci bëgg rek na nga dem euh, Choupa fi may faral di wax jëppal mm-hmm. boo demee ba ci sebe bi rek di nga daal di gis suñu yaay mu daal di lay jox euh, jaay la vaisselle koor gi nooy taajee ba ci ay mm-hmm. set de table comme je t'ai bien dit ah daal lay jaay jox la notice daal di lay euh, tout simplement conseiller ni que nii nga koy taajee wala nii tout simplement ci 77 723 32 32 77 723 32 32 ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal abo ñu bàyyi la tout simplement bu fekkee dafa am euh, ñooy ñooy ñooy remercier en tout cas liggéey bi ñu macha allah maa ngi leen di remercier vraiment di remercier euh, ajaratu Daba Diané macha allah nga xamante ni vraiment bi ma ñëw ko ne dama bëgg ñëw sa boutique daf ma ne demal directement si xale yi demal si maam maam Aram vraiment loo fa bëgg rek yow la macha allah waaw franchement nit ki yaatal la ne la vraiment li yéexuma ko xam nee na dugg na dugg na TFM te xalaatu la génn. message yaa monsieur Cheikhou directeur Stade de Mbour. mais nee dafa bëgg def plaisir à sa femme. te pour loolu il faut mu gis carrément sañ. non ça va plaisir. non sañ sa bis. carrément plaisir. ah yow ni la ko defal trois quarts. waa stade de yaay di nëbb nga ñu ko. waa stade de Mbour. moo jox nga ma kay. ji sa borode léger na. Euh, mu Serigne Fall toujours disponible à chaque fois suñ ko soxlawee fu mu mënti nekk day daal di dem wutal ñu li nga xamante ne mooy baax baax ci biir kër waaye weesul foofu tey mi ngi nii génn ci ay tissus yoo xamante ne mooy ay HKG yi xaw ma ma ko xam ah, yooyu yëpp dinaa dem ba fi nga xamante ne mooy ci Soxna Jaara découvrir ko ndax weeru koor gi ah. sama ñaari xale yi dama changé Ah, ah, ah non dama décidé maye leen yab leen. mais commencé nañu dama leen di maye ñaan ñi. ah nga maye leen bàyyi sama seex. Oh, kii moom moom. kooku dama ko mënalul dara koo nar a muur. maa koy muur. macha allah. monsieur Dji. léegi sama yaay dafa boolewul ci classement. non sama yaay boolewu ko ci mosu dugal yow. mais mbégte la ñuy am à chaque fois comme j'ai l'habitude de dire man depuis que je la connais macha allah mi ngi bay waaram ci liggéey bi. femme de l'ombre ba tey mercredi ngeen koy gis muy euh, partagé ak ñun ay avis ay waxtaan yoo xamante ne elle a quelque chose euh, macha allah yaay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la remercier énormément balaa may tëj euh, di la bàyyi ngay wàcc dama lay may benn son One Lyrical ak Ngaaka Blindé ak Sidi Diop. Mm-hmm. ñu xool vidéo bi léegi daal di la koy sargalee. parce que yow tamit tu es une maman. Aïcha Pape Samba su baaxee ñu xool. honoré on est toujours honoré par les hommes parce que dafa neex torop nga ànd wala ngay bokk ki nga xamante ne kër mooy jigéen vraiment donc euh, waari ji tey moom duma jël euh, sargal bi di leen ko jox mm-hmm. les hommes à côté aujourd'hui donc maa ngi sargal Eva Gomes bi nga xamante ne aussi mi ngi euh, liggéey bu baax a baax mm-hmm. waaye di sargal suñu yaay mm-hmm. ñoom Mame Ndiaye chéri Mbaye Dieye Faye Aïda Madame Ndour Coulibaly sister vraiment ñun suñu 8 mars tey la démb daf ñu rëccoon tey lañ koy bis Pape Samba nag ñuy bàyyi ñu ànd ak suñu sago sister mm-hmm. Mm-hmm. bonne fête à toi bonne fête à toi bonne fête à vous yéen jigéen ñi seetaan tuuti ci Eva dugal ci loolu ndax Eva loolu daf ma ñor tey ma mm. wax ko Eva euh, respecté na heure. Eva da lay convoqué à temps. mu ñàkk caaxaan Eva bu méttee day ñëw. bu mm. nàkkaree day ñëw bu feebaree day ñëw buy sox day ñëw donc mm. Eva mention spéciale à toi xam nga ni yaa jàppale na wax dëgg neex yàlla. ndax yow yaa ci topp de doon wax bingo ak benga man waxuma la Samira mais bingo ak benga ku leen mën a contrôler jàmbaar nga jaajëf. te xoolal loolu dama ciy appuyé wu. parce que bu ñu nee 8 mars je pense femme battante yi. Mm-hmm. femme yi nga xam ne dañoo daj femme yi nga xam ne dañoo souffrir. femme yi nga mm-hmm. xam ne tey jii dañoo xeex pour am dara. comme genre Eva mi ngay wax liggéeykat la liggéeykat la te mm-hmm. liggéeyam mu ngi koy def ni mu waree di teel a ñëw nit ñi suñu maman yi nekk ci marché yi ñu ngi leen di souhaiter une bonne fête parce que da ngeen koo mérito bu ngeen di xëy ñëpp a ngi nelaw bu ngeen di wàcc ngoon na pour ngeen gaaw dem taali ji añ mention spéciale à vous suñu maman yi nekk ci mbedd yi fépp fu ngeen mun munti nekk

terrible. waay bu guddee barke yàlla damay jooy génn leen ci li ngeen gros bisou à toi discours bi moom bu bi bu guddee indi loxo bi damay jooy boo jooyee dañuy am ndam nag girl li ñuy wax ah, yéen yéen a ci jàpp nangu vraiment ba fekk si ma ñu tam ñu jàppale ki nga xamante ni mooy Eva ba muy wéyal liggéey bi donc travail d'équipe la buñ ko mës a fàtte bu baaxee ñun ñëpp la waaye bu sikkee tamit ñun ñëpp la donc aussi euh, en parlant de femme mm-hmm. dem naa seeti benn jigéen boo xamante ne jigéen bu jàmbaar la mm-hmm. euh, jigéen boo xamante ne bu dul liggéeyam doo ko gis fenn une femme de caractère jigéen la waaye mi ngi bay waaram ci li nga xamante ni mooy groupe Futurs Médias elle se nomme tout simplement Soxna Naata Mbaye nekk journaliste ñu dem xool ko waxtaan ak moom dellu si léegi nii Pape Samba su baaxee nekk jigéen ki yeewu solu jàmb kanam gi <laughs> samira jàmb door a ñëw toog et stress u génn li ngay sol xam nga góor ñoom amuñu problème boobu noonu mais loolu li la ciy dimbali mooy quand tu as une famille boo xam ne qui comprend qui te parce que man fajaar maa ngi koy def depuis euh, fin de ñi defar société bi loolu la ñuy wax donc daal ci loolu la en fait elle mérite elle mérite des applaudissements elle mérite vraiment des applaudissements parce que euh, dem l'a si bien dit 4 heures du matin une femme se lève une femme au foyer ba pare nekk li nga xamante ni mooy employer fii ci groupe Futur Média pour abattre tout simplement li nga xamante ni mooy liggéey bu magnifique bi nga xamante ne képp ku koy seetaan bi puis da koy gis elle est en super bonne forme mm-hmm. day solo nice qu'est-ce que ça te fait en tant que euh, l'assiste soxna naata nga gis ko mu nekk journaliste elle se réveille très tôt elle a sa famille à gérer elle a tout ça te ni mu euh, noo ko noo ko gisee en tant qu'homme Donc, euh, quand, quand, je l'ai écouté, la seule parole que j'ai retenue, euh, c'est le 4h30 du matin. Ah Donc, le réveil à 4h30. Le réveil à 4h30 du matin. Uh-huh. Vous faites peur là, ah les garçons. OK Tosh et J, soyez sages hein, là-bas. <laughs> Okay. à elle. Mm. Euh, voir une femme qui se réveille à 4h30 du matin pour une émission qui commence à, à 7 Donc euh, faire tout pour sa famille, son mari, ses enfants. Euh, donc elle est à féliciter hein, comme tant d'autres femmes mhm. aujourd'hui qu'on connaît pas qu'on voit pas mhm. qui se réveillent à 4 heures du matin dem jëndi ay jën ñëwaat seen kër ah et tout wala dem jëndi ay jën jaayaat jën pour am benn bénéfice boo mhm. xamante ne nañ ko mën a indi seen kër donc aujourd'hui Euh, c'est le miroir euh, on dit miroir de la TFM elle euh, bokk na tey ci miroiru jigéen yi nga xamante ne tey elles sont à féliciter elles ah sont à magnifier parce que jigéen bu nekk ci euh, sa domaine yaa euh, tu dois être si domaine journalisme elle est numéro un mm, là-bas. Euh, si domaine animation Samira Choupa et autres doivent être les numéro un aussi si seen domaine. donc c'est ça qu'on a besoin des femmes battantes des mm. femmes leaders bañ a toog rek na ah c'est mon mari qui va qui doit faire ou bien c'est mon mari mm. qui va faire. Ah voilà on est une équipe on est une famille. góor ak jigéen ñoo war a jàpp indi si kër gi. macha allah góor jàpp jigéen jàpp euh, loolu mooy li nga xamante ni mooy li ñu war ñun en mooy euh, moom son objectif en fait li mu bëggoon nekkul woon journalisme mais dafa bëggoon dem fi nga xamante ni mooy école des beaux arts pour vous dire man déjà man fii ma taxaw nii xalaatu ma àdduna dina dox ba ma taxaw fi euh, elle se réveille à 4 heures du matin c'est pas évident waaye aussi euh, mi ngi wax ci li nga xamante ni compréhension famille tey bii bu taxawee fii ce qui veut dire que Eva am na tuuti compréhension. mi ngi téye bébé grâce bu ko defee pii la li nga xamante que vous soyez divorcé ou pas ku nekk da nga ci am wàll donc euh, soxna naata tu as tout notre respect parce que jigéen nga yaa ngi bay sa waar di teel a yeewu di teel a toog présenté li nga xamante ne mooy sa journal parfois mu war a toogaat ba 13h parfois mu war a toogaat ba guddi pour présenter li nga xamante ne mooy journal je veux que l'avis des hommes ji noo gisee ki nga xamante ne mooy soxna naata yeah nice na en tout cas félicitations donc gars yi kontaan nañ si moom maa ngi jot ay message ne nañ chapeau à elle ah voilà donc sur ce tamit am na ay femmes sax ñoo ngi seetaan di ah ko magnifier euh, c'est trois divas bien sûr le groupe Safari mm. nee nañ kontaan nañ ah si si image bu ñu gis mais en de ça ñoom nee nañ seen xew la tamit dafa am lu bees loo xam ne dañ ñu ko yónnee ah. waaw son bu bees boo xamante ne léegi la génn sax ñu yónnee ma ko whatsapp amagul clip amagul dara nee na dañ bëggoon ñu may ko sénégalais yi quoi macha allah léegi dañ si déglu benn 30 secondes rek ñu xool lan la ñuy woy xale yi am nga ko yow exclusivité bi voilà waaw Aïcha su baaxee nga may ñu ko su baaxee nga may ñu ah, ko mais on remercie tout simplement la siste soxna Naata ndax ñu ngi woyal liggéeyam ak euh, Faty Dieng et euh, plein d'autres dames yoo xamante ne ñu ngi xëy di bay seen waar ñun rek li ñuy def nii rek c'est pas facile a yeewu bi mag yeewu xam nga jamb yeeg yi ñoo taxaw fii franchement ñoom ñooñu ñoom ñooy suñuy royukaay. ay ji ñëwal. tos dafa jógee Almadi Almadi la jóge keroog anniversaire Eva bi. le set su ko gëj gis mu ànd ak ñetti xale yu jigéen. ñetti xale yu jigéen la am. léegi yow ñëwal ñëwal ci son safari bi nga may ñu ko ñu ñu ko balaa ñuy dugg ci wax ju sew ji moom blanc bi mu def ak blanc bi ma def rek laay jooy. moom moom kaa aywa demal. tii soog tii ñu xool ko taf taf. mer macha allah euh, safari ñoom lu ñu génnee day gën. Mhm. parce que trois dames encore une fois ah man dama bëgg jigéen ñi. Mhm. surtout jigéen ñoo xam ne dañu gëm seen bopp. Choupa mhm. balaa ñuy dem seeti ki nga xamante ni mooy euh, Mor Fall établissement dama bëgg ñu nuyonteeg borom lu blanc li man tout blanc bi mu sol rek moo ma xaw a déranger ndax blanc bi ma génn ak ndaxte. waa fii yow ñëw ba yàgg yow nekkoon ci kii di coordonné. <laughs> may namu nañ la fii. maa ngi raw ñu ngi lay nuyu di la kontaan di la wax namoon naa la fii sa. comme oh. bi nag. non ngi nuyu ñëpp euh, à travers la TFM ñu ngi nuyu la monde entier. Euh, ñu nuyu bu baax fi ñu yeewoo. muy euh, jàmm gën Kër Massar ak Mixta. ak yamu ak Yamoussoukro ah. ñu ngi nuyu ñëpp di leen wax di leen jaajëfal. ñu wax ñu dal ak jàmm rek euh, ñu daal di leen li nga xamante ni moo di weekend bi. Ah. weekend bi nag dafa xaw a assez spécial. parce que mm. weekend bi la boo xamante ni daf ñuy dugal direct. ci li nga xamante ni moo di euh, élection yi. Ah. dañuy daal di meeting. Ah. Euh, en même temps week bi mooy week bi ñuy dugal aussi tamit ci ramadan bi ñu mën a fekk ji ñu euh, ñu mën a dabe ànd ak ñii ci carême bi waaw nga xam ni kon week-end bu spécial la tey la ñuy tëj saison yeeg lépp tey lay xew insha allahu rabbi mais ah, mais ci tëj saison bi am na lu fi jot am pour mais lan am na wala kaa euh, kaa yi guddi parce que lan mooy tëj saison ah loolu tamit lu spécial kaa am na ci diggante bi wala kaa am na ñu ñuy sosal ay kaa di leen créer ay kaa anniversaire Euh, de de de la femme de. ah Eva le 7 waaw c'est normal may ñibbi. Uh-huh. Euh, am ay fan suñu la topp. dëgg la da ngaa xew yow mii déposé ñu. da ngaa xew déposé leen ñu ñibbi. da ngaa xew loolu aayul xale jigéen ñi may laaj numéro bëri na de. dëgg la rafetul jigéen kenn du ko bàyyi mu ñibbi walaay dëgg la man bu ma la naree jox paasu taxi. Uh-huh. dama yor lu ma la yóbbaale mais naa la mu sa yóbbaale ay nit. ndeysaan dëgg la naa la Kër Masar yor sa oto. Ah. di yóbbaale ay nit. <laughs> bii mii day yóbbaale. en tout cas yóbbaale. mi day yóbbaale suba day yóbbaale. comme yóbbaale. yow daal boo yoree sa kaa. rënk ko rek moo gën a wóor. waaye xam ngeen ni waa. waa Côte d'Ivoire ñoo leen solal tey kan moo la solal da nga sañse non tey ma ma xool euh, lii kan moo ma ko solo. fashion xaw ma naan du moom. non tey du moom moo fashion. du moom tey euh, c'est mon ami mon frère Disco ñaar l'officiel. Disco eh, mais si suuf gi nag suuf gi suuf gi. Mhm. daal yu bees la yu bees la. yu bees tàq la yu bees la boo ñëwee di nga boo ñëwee di nga xam ne moo taal fii la ma génnee man tamit. Oh, yàlla baax na ñu bëggee ñi nga xamante ne ñooy waa Facebook ah ndax ñoom ci émission bi lañ bokk. Euh, jus d'orange oui ah s'il te plaît. waa Facebook ñi ngi ci émission bi ah dañu bëgg gars ñu may leen sa di DJ Ron mi ngi naan la démarche depuis macha allah feeling patch euh, DJ Ron tamit macha allah nice les gars bon week-end euh, les femmes noires femmes. Ah, ki nga xamante ni mooy xadika nee na mi ngi lâché ak Jomaay euh, euh, Faye mhm. euh, macha mi ñuy béggee mhm. ak Abou Kane <laughs> Saliou Kane aussi vraiment ak Tamba l'original nee na ñuy paasal élèves yi xam naa loolu yow yow si kii la Motar Senghor aussi mi ñuy souhaiter tout simplement bonne fête à toutes les femmes Samira et sa team et tout waaw waa Facebook ci lañ bokk mënuñu cee ñàkk waaye tamit Choupa demoon na seeti ndaanaan boo xamante ne nee naa leen moom tamit fu muy doxantu rek lu baax rek la fay jëlee ni sama yaay demee fee noonu la ki ñuy wax kër Mor Fall. établissement Mor Fall la demoon ba marché Rufisque waaye ndaanaan la nag ci li mu doon. macha allah ndax Mor lépp lu waay soxla rek am na fa. ci wàllu wàllum vaisselerie poissonnerie ah. bambinerie. mais Pape Samba bu nekkee élément bi pare na yaa joodo moo ñu fa demaloon na def ci def ci affaire bu doy waar. sunu <laughs> sunu mag yi. wala sunu mag yi ndax damaa ñëw ci sama dëkk. fi ma juddoo màggee fi yaroo fi macha allah ñëw nag fekk si fi koo xamante ne kenn dootu ko laajte partout dans le monde mu yombalal leen lépp maa ngi nii boo ñëwee ba école Abdoulaye Sadji CM Abdoulaye Sadji en face CM bi nga woote ci numéro bi nga xamante ne moom ngeen di gis ci bandu ecran bi topp ma ma wan la sama frère Mor li mu def li mu liggéey ci réewam acca yor vaisselle yu baax yi macha allah xoolal séenal ma glacé yi nañ dem ba fële nga xool. yi nga xamante ne moom la nit ñi di jëfandikoo ci xeetu cuuraay. ma ne leen ndeysaan jàmbaaru fakk tëdd la euh, nee naa leen juddoo ci réew mi màggee ci réew mi tekkee ci réew mi macha allah euh, loolu la def te doxul daraay ñàkk fayda macha allah am ambition gis ngeen tey euh, doomu tëngéej bi tey li mu investir nee naa leen fu waay mën a nekk ci àdduna boo wootee ci numéro bi dinañ la ko livrer ci ni mu gën a gaawee. vaisselle boo soxla ak réew bi mu mën a jóge moom dem na fa ñëw indil leen ko fii euh, ci établissement Mor Fall ñëw leen ngeen topp ma sama góor ziar nañ. ñu ngi lay yaa ngi am jàmm. waaw ju bari lan nga sentir tey ci TFM ba tax nga dugal fa sa produit. TFM fu la lépp nekk moo tax. Kër Mor Fall macha allah Choupa li ñu fi gis bari na yaatu na am na diversité fii boo fi duggee da ngay dugg rek génnaat. ma loo nam rek. macha allah dinaa la bu la neexee nga yeewu suba teel nga ñëw def say achat ndugg mm-hmm. marché jënd say jën soo paree jëndalaaleel sa doom yére boo jàllee noonu rek jëndal alaaji tamit loo taajee mm-hmm. vraiment parce que nekk na nit koo xam ne moom nit ñëpp ràññee nañ ko ci gox gi mu nekk muy Rufisque mm-hmm. donc sunu yaay jooro demoon ñu fa ñu def élément bu nice bi ànd ceeg Aba Kamara ah suñu sista macha allah ànd ceeg um, Karim a ah, ñu ngi koy nuyu de passage di la remercier ndax déplacement bi yomb. numéro téléphone baa ngi nii nag établissement Mor Fall 77 641 24 31 6 77. 641 24 31 loolu mooy numéro téléphone bi euh, foo leen ci bëgg a dem nag mën ngeen wootee ñu euh, gidde la ci poissonnerie bi bambinerie bi yow yaa xam daal lan nga bëgg mais mu Rufisque ak li ko wër Bambilor Sangalkam yéen ñëpp daw leen ngeen seeti waa établissement Mor Fall Samira Aïcha mi ngi noonu établissement la waaye lépp loo bëgg rek di ko fa fekk ni ko Choupa waxee ay dàll ak ay yére xale waaye lépp loo bëgg rek ci xeetu baax baax boo fa duggee daal maanaam ci xeetu jën ah vraiment suñu sister Joodo tamit ñu ko ciy bigga bu baax a baax mu def déplacement def tagalam daal di dem représenté ñu fi nga xamante ne dem seeti ki nga xamante ne mooy euh, Mortal Mor Fall ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal ki nga xamante ne mooy Joodo aussi euh, sur ce aussi xam ngeen ne am na partenaire bu fi nekk comme à l'accoutumée euh, suñu partenaire bi mënuñoo waxtaan ba waxtaan ba waxtaan te duñ génn ci lii mm-hmm. ndax ci 8 mars bi xale jigéen ñi bëgg naa a bàyyi xel tey 365 jours yëpp 8 mars la 365 jours yëpp 8 mars la dañ cee war a sàrgal jigéen fii moom savon bi moo koy daaneel parce que gisoo chaque chaque émission mu jël savon bi yóbbu fii savon bi dañ koy savon chérie Eva temps yi belli nga belli na lool yellow vet sang ngeen fii nag ngeen jël 364 yi sax ngeen jox ñu benn non non non duñ leen ci jox benn nag ah, ah, te duñu nangu tamit ngeen jël 364 jours yi rënk ko pour 8 mars bi rek ngeen bëgg ñu koo jox. man 364 yi duñ leen jox sax yéen xaaj. mi ngi doon ayca partenaire bu meilleur partenaire bu gën bu riche ah je sais xam nga ko bu baax Yellow Vein nga xam ne day hydrater sa peau. daal di koy nes-nesal waaye day dindiwaale bépp bag dàkk-dàkk ndax gel douche baa ngi nii xet bi rek boo ko sentiree xam ne amul dara hydroquinone acide de flux lañ ko defaree bi mooy euh, lait bi concentré waaye bi aussi xam ngeen ne mooy gàtt di gën li ma leen koy faral di waxee waaye lotion bi nag euh, toche sa si bu amee benn gàtt tàkk. sama ndaw si. ay ndaw benn problème gàtt gàtt ci yaramam. am na ñeenti ndaw da nga koy digal waa yeloo gat mu dem seeti leen ndax lii. lii mën na faj solution bu ne ni mu tuutee nii. Hmm. solution bu ne mën na koo dindi. mën na faj loolu mooy la totale mi ngi Yellow Vert nga xam ne nee leen bu génnee day gën ñu leen ci remercier amplement ndax ñoom tamit depuis boobu ñu ngi ñuy ci émission bi waaye ñoom tamit gis nañ ci seen bopp hmm. waaye ñi ñuy seetaan am nañ ci ñoo xamante dañ may message naan dañuy koy utiliser et macha allah donc ñoo ñu leen remercier ah, nee leen gaam Kera cosmétique encourage sa ndaw yi. man damay am mbégte parce que euh, Yellow Vest retour yi man yi ma ciy gis moom c'est extraordinaire. jigéen ñi dañ koy laajte di ko laajte di ko laajte xam naa nag stock bi moo xaw a ah, ah, wàññeeku foo dugg ci internet bi euh, particulièrement Facebook am na benn groupe boo xam ne tout le temps dañ ko fay laajte euh, ñu ngi koy wër partenaire bi xam naa ni moom jaay nañ nag mais mais tamit lu baax la mhm. lii di fi mu ne nii suñu koy publicité damay kontaan barki yàlla parce que dafa baax ba pare bi xam nga lan la Chouba mhm. gamme complet bi lañu war a wut ñoom ñëpp buñ bëggee résultat saa si. Mhm. nañu wut gamme complet bi. fii ak qualité incha allah ñu ngi gis ni que tàkkal la yow la wax yow. Ah, léegi man kay ndaxte laa am lu ma koy laaj rek. man kanam mu ñàkk fayda laa ko woon. lan la de ba nga naan ma wutalal sa ndaw si mu naan ma sa ndaw yi. mais dina maa xamee ñu bari. non dama dama lay laaj parce que kan la ci parce que xam nga tey jii. kan la ah, ci bëri la la. kan la ci en direct kan la ci bëri la nga xam ne moom la ñu weer la. bàyyi mu sedd. toj thé noir bi nga doon waxal keroog wala. waaw merci. waaw man de kooku laa gis man tam thé noir mu mel nii ndaxte. waaye ji euh, pii yaa ngi yor savon bi. Euh, dafa mel ni savon bi dafay def effet ci yow. parce que man gis naa changement ci yow. waaw savon man léegi moom mooy sama secret. bañ naa ko en plus cherul. cherul de. gars yi maa ngi leen koy conseillé ah. yellow wet c'est la différence.

à mm-hmm. Bigé Samb. à Fatou mm-hmm. Ndaw. Mm-hmm. papa Assane Ndiaye. am ku sang war a diw Awa Bitey. jox leen lépp da nga bàyyi ku sang war a diw Ibrahima Ndoye. Ibrahima Diop non Cheikh Ahmadou Bamba Diop. waa une tâche bien sûr de Pape Samb mention spéciale à vous ça fait plaisir de savoir que vous soutenez Weekend on est de tout cœur avec vous et on vous souhaite un bon Ramadan à vous. ah oui merci merci. en tout cas dañu léegi ñu fekk si leen bu ko defee daal. dañuy demee. ñu ah, fekk lay daal di waaw waaw yëpp yëpp yëpp lay daal di xaar parce que ñu fekkante sax moo ñu moo waaye aussi xam ngeen ne aussi euh, Boy Nder man Boy Nder laa koy wax. waaw Alioune Mbaye mm. moom day bëgg di dégg Boy Nder. waaw xam nga moom tam day xaw a tëjaale saison bi nii daal di woo mm-hmm. ñëpp ñu ñëw xool euh, benn événement boo xam ne daf koy waajal te xam ngeen ni moom tam mu génnee day daal di gën. Mm-hmm. waaye dañuy xool suñuy élément bi nga xamante ne mooy suñuy yaay wala Pape Samba bu ci yemb rek nga jox ñu ko ñu xool Nder ba pare doog a ñëw. Alioune Mbaye ñu xool ci Alioune koo xamante ne bu woyee ñëpp kontaan dëgg-dëgg warul a a way attention à la demande générale Alioune Mbaye Nder vous

ne ndeysaan liggéey dafa métti dafa bëri pression léeg-léeg ñuy génne ñuy dem di consommer ay Alioune Mbaye Nder yéen lu ngeen ñuy soxale daal la xamuñu ko billaay xamuñu ko maanaam ñenn ñi nga xam ne nar ñoo am jom rek ah. ñooñu la quoi mooy ñi nga xam duñ bëggal seen i jigéen ah. ah mais xew-xew yu xam ni xam dëkk bi xam dëkk bi dafa bëri stress dafa bëri ah, stress trop yu mel ni jàpp sa loxo jigéen wala sa rakk wala sa mag sa yaay sax ak parce que génération Aliou Mbaye Nder la. Mm-hmm. ñëpp a ngi ci biir. c'est de 7 mm-hmm. à 77 ans. Mm-hmm. ñëpp mën nañ faa ànd COP 21 ñu ñëw daal di euh, fecc foo kaf reetaan lekk naan. firi wàcce stress bi euh, Sabira lan moo gën di. waaw man dafa dama am problème euh, kii Toch. Ah. parce que man démb damaa jot appelu ñamaxit ma foogoon ni vraiment. waaw dafa may woo pour sargal ma ndax jigéen bi ma doon. Mm-hmm. ah xool ma ci ñoom Aliou Sitoé Diatta mm-hmm. ah, Yacine boobu. ñeema mm-hmm. euh, xit ne ma dama bëggoon nga génne ma yóbbu ma chocolat sare yi ma ne ko pardon man maa lay génne. mu ne ma waaye yaa ma war a génne ma ne ko ñeema xit xamoo ne tey la 8 mars mu sama sama sama grand frère nga. Ah! nee na ma jigéen bu yor chantier nekkatoo jigéen <laughs> ñeema xit lii la ma wax de ma bàyyi àdduna. ah Samira dëgg neexul mais jigéen bu yor chantier. waaw mais y en a a mais xanaa kon Anta Babacar Ngom kon lu ngeen di wax ci moom. Ah! moom mi aspiré à nekk présidente Eva mi toog fi di liggéey liggéey bu mucc ayib. <laughs> waaw waaw bëri nañ ci ay jigéen ah ñoo xam ne vraiment ñu ngi liggéey. dafa am gale boo xam ne mu ngi waaj a pare ñaanal leen ko mu jekkali ba nga jàmm. Ah! <laughs> amiin amiin amiin waaye comme man euh, ñamaxit loolu la moo wax Pape mm-hmm. dimbali ma bul siisu parce que am nañ suñu ay suñu ay kilifa yoo xamante ne man en tant que femme su ma mm-hmm. gisee vidéo bi daf sama xel day dal mm-hmm. parce que jigéen la c'est vrai que parfois je me laisse parler dama naan jom lu ñu mën mën nañ ko féministe bu xaw a bizarre la mais bon ñun ay jigéen rek lañ mënti doon neuf mois ëmb neuf mois rek góor bu attanul lool déjà donc Pape Samba su baaxee am nañ ay message yoo xamante ne suñu ay tonton suñu ay xarit suñu ay naataango ay góor ñoo ko souhaité yow mi jigéen toog jàkkaarloo ñun mm-hmm. ah, ci bi di la sàngal donc loolu su baaxee rek ñu xool ko daal di féexal xol yi asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum Sénégal man la Alioune Mbaye Nder maa ngi wax jaarama jigéen sargal naa jigéen fonk naa jigéen adduna yàlla da ko tënk boole ci jigéen muy lu am solo ci adduna ñooy suñu yaay ñooy suñuy rakk ñooy suñu soxna ñooy suñu tante di suñu bàjjan suñu mbaañ femme femme femme jigéen jigéen sunu yaay jigéen sunu ay soxna jigéen ba tey xam ne ni nag bésu tey bi moom mooy journée internationale de la femme muy 8 mars jigéen ñi ay jàmbar lañu jigéen ñi ay bañkat lañu Fadialo Ismaïla Lo en hommage à toutes les femmes en ce 8 mars, journée spéciale dédiée à toutes les femmes, les mamans chéries, les sœurs, les cousines, les tantis, les badianes, les mams, les mamboy, jigéen, en hommage à toutes les femmes. Bonne fête de mars à toutes les femmes du monde. Bonne fête de 8 mars à toutes les femmes africaines, sénégalaises. jaajëfal leen encore une fois sargal leen di xalaat suñu yaay yi nga xam ne ñu ci gox goxaat yi di ñafe pour seen famille waaw tey bisub sargal jigéen ñi la te jigéen ñi amaana sargal leen dafa war ci ñun saa su ne maanaam bés bu ne dañ leen war di sargal ndax jigéen amul morom waaye tey dafa nekk bis bu spécial pour ñoom mu nekk journée internationale de la femme journée bi nag ñu ngi koy jagleel suñuy yaay di koy jagleel suñuy jabar di ko jagleel suñuy sœur di ko jagleel suñuy xarit suñuy doomu ndey képp kuy jigéen ñu ngi lay souhaiter contentement laa am de bi parce que ku xam Kader xam na ni je suis un féministe te dama bëgg sama yaay bëgg samay sœur te mbëggeel boobu noonu laay transmettre ci bépp jigéen bu may dajal que tey encore une fois li ma ko tàmm waxee nara ñun ñun xaar le 8 mars pour sargal jigéen jigéen dañ leen nar a sargal chaque jour bu yàlla sàq lu tax ma wax loolu mooy même taux de dépression bi soo ko demee xool jigéen ñi lay gën a dal ko góor parce que merci ah, merci à vous nos frères ah démb laa toog rek ndeysaan euh, DJ Boub Super mbay Dieye Faye Kader Gadji Pa Assane Alioune may Nder ma ni leen d'habitude ñun jigéen ñi ñooy def ay vidéo di souhaitante ay bonne fête et tout pourquoi pas les hommes et mm-hmm. ñu defal ma vidéo yi vraiment sama mm-hmm. m'a un peu touché vraiment mais yéen j'espère que yéen jigéen ñi nekk euh, mm-hmm. ci télé bi jàkkaarloog ñun ça vous a touché euh, ndaxte d'abord qu'est-ce que ça te fait de voir ça maa ngi maa ngi maa ngi juum sax naan je parle ma lakkal <laughs> Samira mm. am na ay góor yu reconnaissant am na ay góor yoo xam ne dañoo reconnaissant te big up à vous. comme man dañuy gis effort yi jigéen di def tey jii li leen defloo vidéo bi dalay leer ni que seen xol lañ ko tibbee génne ko. Mm-hmm. Mm-hmm. lii ku baaxul mënoo koo def. ku mm-hmm. baaxul mënoo gis mbaaxu nit ba di ko wax. macha allah ba pare ñi ko def ñëpp presque ay artistes lañ. ñii ay. Euh, exactement c'est des hommes connus. ñi nga xam ne. les mais artistes ñoo mel nag. macha allah ñun ñëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ndax tey jii comme ni nga ko waxee jigéen ak jigéen rek ñoo daan souhaité ndoo li nga xam ne mooy journée de la femme mhm. mais tey ji góor ñi dañoo jël initiative ne ñun tamit ci la ñu bokk ndax foog tamit ñu sargal suñuy jigéen mhm. foog ñu sargal suñuy jabar foog ñu sargal suñuy doom suñuy rak suñuy yaay suñuy mag macha allah big up à vous te ñu ngi leen di saluer bu baax a baax wax pour ce geste. allah dafa neex euh, je pas quelques minutes mm-hmm. quelques secondes rek ci ki nga xamante ne mooy Aliou ba Mbaye Dieye Faye euh, DJ Boubs Mamadou Ndiaye Pa Assane ak Kader Gadji euh, def vidéo bu ni mel nii ça fait quoi. kontaan rek parce que tey ñun amuñu lu dul suñu bës. Mm-hmm. waaye tamit idée bi fu mu jógee la. féministe. Mm-hmm. boo xam ne tey une brave femme. moo am idée bi xam nga ñu jigéen kii xalaat ay biographie moom mi ngi xalaat bi muy sargalee jigéen am idée bi tey dem euh, ci euh, ndaanaan yoo xam ne kenn dootu leen présenté ci réew mi que ce soit artiste wala mu nekk euh, acteur yéen ñëpp ñun ñun ñuy jigéen ñi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax sànq maa ngi tooñ ndaxte naan kan artiste yi dañoo galant mais tamit daa mel nag macha allah kontaan nañu dajee boobu si tamit chapeau à vous Merci. merci beaucoup pour cette très belle vidéo dédiée aux femmes donc ñu koy mayaale ki nga xamante ne mooy suñu yaay Adja bu mm. Serigne Fallou ndax moom aussi xam ngeen ne lu fi baax moom la mm. donc dama bëgg ñu xool making of bi rek daal di dellu si moom it mooy jigéenu jàmbaar mm. jigéenu sëñ Fallou bi kenn moom nañ ko xool dellu si waat léegi Pape Samba jigéen ñoo xamante ni dafa vaisselle vous di leen wax ni koor gi affaire bi mën na ñëw leen ngeen taaj lu baax def lu baax teral seen bopp teral seen i borom kër teral seen i gan. si koor gi si bismillahi rahmaani rahim di ñaan ay dafa manque ay dafa manque ay dafa euh, merci beaucoup euh, merci euh, ci sargal bi ngeen ñuy sargal merci aussi ci suñu yaay uuf bi mu ñu uuf ñun ñëpp njabootuñu waaye merci aussi a abu ak jabaram soxna Ndeye Fatou ñu ngi leen di remercier suñu yaay yi ñun ñi nga xamante ne ñoo ñu sugu jur duñu leen fàtte benn yoon waaye sachez que vous êtes dans nos cœurs mm-hmm. liggéey bu ñuy def nii buñ ci sonnee yéen ñu ci appuyer mm. waaye ñi nga xamante ni bokk ñoom dara dañoo gis bëgguñu bëgg ndaxte ci musique bi muy def bëgg Samira ci cinéma animatrice bëgg Choupa pareil bëgg PNJ wala ñu bëgg Toch amour bi ngeen am ci ñun mm. bu ko raw la ñu am ci yéen te tey lañu am pour euh, sargal leen ci ñu ngi leen ciy bégg bu baax a baax Samira 8 euh, mars bi man chaque 8 mars euh, je pense que day am thème mm-hmm. thème ren bi mu ngi nekk maanaam mooy droit. autorité parentale partagée waaw partagée. Mhm. affaire yooyu noonu man nag sax 8 mars dafa am ay xeetu jigéen yu ma koy may. d'accord euh, man 8 mars bi maa ngi koy may maire maire mbootaay. Mhm. bépp maire boo xamante ne mës na fàqal natt. <laughs> waaw maire bandi yooyu noonu. <laughs> xamante ne ay wagal ak maire yi man 8 mars bi ñoom laa bëgg ñu sargal leen ci bu baax a baax a baax parce que loolu. il faut loolu fi da koy def. loolu risque la ragal du def. ah maire bépp maire mbootaay boo xamante ne mës na fàqal natt. <laughs> mooy dajale maire waa koñ bi yëpp ñuy natt weer bu dee junni weer bu dee yi nga dajale ko ba mat xaalis bari nga fàqal natt bi dawam moom loolu c' est à féliciter da ngay xam ne maire yi ay wagalanu. am <laughs> na war a jàppale lan ci jigéen ñi lañ bokk. dëkk. lu ngeen ñu ne si jigéen ñi lañ bokk. man 8 mars bi ñoom laa ko tijjee. di leen wax vraiment vous êtes des braves. gën leen a fàqal natt yi. maire yi li ñu dëkkee rek leen cee bàyyi sàcc suñu xaalis doom yi di ko nattee kon bu leen seen moromu maire fàqalee seen natt yéene naa leen ko di félicité bu baax a baax a baax bépp maire boo xam ne nga fàqal natt chapeau à vous maire Wagaye féete laa leen bu baax a baax yéen laa may 8 mars am nañu jàmm dund ak Flamira ñu kon ne émission bi moom laa may ñu marché. Samy. ok Samy. maa ngi ma non kii kii bu ko toppee duñ def duñ def ma bi ah, ñu koy. mooy maman Ngone Ndour. waaw dafa xalaat. raam ngir yàlla. ñu yegg la suñu sax man ndaxte ta petite fille. Mm. maa ngi lay sargal bu baax a baax. ba ma fi dalee def émission ba tey je pense que tey laay door a tudd sa tur ci télé bi yow ñoo la bëggal suñu bopp mm-hmm. yow rek yaay suñu référence mm-hmm. ci yow bu ñu xoolee ni nga bravé mm-hmm. ni ngay xëyee ni ngay wutee ni ngay sonnee ci doomu aadama ni ngay sonnee ci ci pour pour dara dox ñun yow rek yaay suñu royukaay te tey jii xale yu ci bëri fu ñu yegg tey ji ci yow la ñu xool topp say tànk ba yegg fi ñu yegg big up à toi merci beaucoup Big Lô macha allah Tata Ngoné man dama koy jox kenn rek ah une sœur boo xam ne ñun daf ñuy représenter ñun ñëpp que muy cinéma que muy femme que muy euh, vraiment nit ku koo xam ne si elle a un cœur en nga xam ne dafay taxaw toujours di xeex li nga xamante ni mooy les droits de la femme nekk référence nekk une sœur donc euh, ma depuis Tunisie maa ngi lay big up di la wax ni euh, jox nañ la jour bi yow tamit waaw man tamit maa ngi koy jox Ajaratu Momi Kébé bu sëñ Abdoulaye Tagué mm. kooku femme boo xam ne dafa dafa social. macha allah baax ku lu dul yoonu murit safu ko. yaay booy euh, may nañ la bés bi may nañ la tamit euh, lépp loo xam ne ñu la koy sargalee rek ñu la koy dolli. ayca jaajëf macha allah mais di yow koo koy may. voilà ñuy ah, yëgal plaisir un ami on jou tous les jours du lundi au vendredi euh, au football il s'appelle Boulaye l'américain voilà connecté depuis HLM Fass mu ngi seetaan moom yow góor ñi nga may wala commandé non anniversaire am la sama copain la ah, moo ngi seetaan anniversaire am la moo seen waa kër yëpp ñoo ngi seetaan da ko wax yaay ji quoi ne ko yaay jàppal TFM dañ may may dédicace mais yow jigéen boo boo war a sàngal tey waaw waaw si sàng jaale naa jóge naa foofu yàgg na sa copine ah mais leen ma jéggali kii Boulaye l'américain la tudd góor dañoo gan yi dañoo am na na gan yi ñëw invité yi waaw waaw dina ñëw dina ñëw léegi ah. Boulaye moo ñuy seetaan actuellement connecté depuis HLM Fass c'est son anniversaire Boulaye happy birthday sur ce tey dañu ne journée de la femme mhm. invité yi on a invité que des divas ay ah femmes rek la ñu invité mais avant de les accueillir dafa am benn nouvelle boo xamante ne ah grosse victoire pour la Côte d'Ivoire uh-huh. coup de marteau bi nga xamante ne moom la gars yëpp fecc Sénégal beeg monde bi yëpp voilà donc Tamsir reçoit un disque d'or oh ah il le mérite il le mérite voilà on enchaîne bien sûr avec une diva qu'on va accueillir c'est une camerounaise. voilà c'est une camerounaise. elle se nomme tout simplement. Da Da Da Daniela. let's go enchaîne. On enchaîne, Voilà donc euh, elle Daniela on enchaîne avec un joli morceau c'est un tube ça vient ouais. sortir son bi la génn. tey la génn waaw bi ñuy nar a déglu exclusivité dans l'émission Week-end on enchaîne avec le nouveau tube <laughs> Chan Aloué. Aïcha en même temps on regarde les clips Daniela. Boro, cholo boro. Una bella ragazza. Daniela. Daniela. Oh La galanterie toche. Prends sa main Venez, venez. Ah là là. Tu l'as vu? Ah ok. Les femmes d'abord. Ah d'accord. a gagné le Camerounais, il ji <laughs> ji ji phénomène bu ne yaa ko fi indi mais dañu la c'est una bella ragazza. Ah macha allah il faut il faut <laughs> il faut l'avouer euh, son boo xamante ni shine always oh alors toutes les femmes je pense qu'elles doivent prier selon vous bonjour avant toute chose je vous euh, dire bonjour aux téléspectateurs Bah, bonjour tout le monde, c'est Daniela Aranda, Aranda. Euh, artiste chanteuse. D'origine camerounaise. Très euh, résident au Sénégal. Ah, et je fais la musique ici depuis euh, de nombreuses années. Voilà. je suis dans le groupe Ramdan de Walisek ah, en tant que ma ne ko. awkat. ala ah, la la la la la. maanaam si gàttal toj moom mooy aw. waali Balago Seck. ah oui ah, si si orchestre bi la bokk. ah oui donc tu connais Diakhaté Lat. Euh, oui. waaw waykat bi joxel joxel jox ko kii. bi ngeen ko gisee nii. moom jaar na fi nga xam ne mooy The Voice. The Voice. oh my God. oui oui c'est vrai. ah oui ah oui macha allah. machallah elle fait bien son travail elle a une excellente voix merci su ma ko gisee ci ginnaaw quand elle fait des tierces mm. derrière les chansons de de notre grand frère Wally Gala Wally Balago Seck dañuy kontaan parce que li muy def mm-hmm. li ma leen wax ni artistes yee toog ñoom xam nañ li ma leen wax tierces yi ci suuf daf may daaneel mm-hmm. ok euh, donc un refrain c'est ça. Non, pas ça. C'est moi qui choisis. C'est elle, c'est elle l'invitée, c'est elle qui va choisir. ok def man ndànk xale bi fii mu yegg neex na def man ndànk ey yaa may gaañ yow def man ndànk xale bi fi mu yóbbu neex na def man ndànk rajaxe nga ba ba daan ma def man ndànk yaa ngi may cogotaan maa ngi dundu néew waay rajaxe nga ba ba daan ma Non, elle est, elle, elle est On a, a l'habitude de voir des artistes sur scène, que ça soit Sidi que ça soit Wally Balago Seck, que ça soit tous les artistes sur scène ñoom ñoo jiitu mais derrière. Ah oui. femmes. Ah. derrière c'est ces hommes ñi nga xamante ne tey ñoo mm. donc c'est très important léeg-léeg sénégalais genre artistes yi. ñooy raison pour laquelle aujourd'hui waa team Weekend Star indi leen jëmm ji. Mm. pour ngeen gën ko découvrir. encore une fois félicitations constaté. Je vous invite tous à aller regarder sur ma chaîne Daniela Aranda oui, sur YouTube. Partagez, abonnez-vous et je vous promets une chanson ah, je travaille dessus. Waaw. Est-ce que dégg savoir où euh, vous avez réalisé ce magnifique clip. Alors, ce clip, je l'ai réalisé à Douala au Cameroun pendant que okay. j'étais en congé là-bas, mais je l'ai enregistré à Dakar au Sénégal avec euh, Papounet, Hakim. Okay. Euh, euh de, de Papa Wali Donc voilà. Très jolie vidéo. Merci beaucoup. Ah parce que c'est une brave dame. Tout le temps, on la voit derrière. C'est une voix qu'on entend mais qu'on voyait pas. Mhm. Moi, j'ai l'honneur. Merci beaucoup, mon frère G. Mhm. J'ai l'honneur de la découvrir. Machallah, elle est euh, magnifique. Mhm. Sa voix est extraordinaire. Ça fait euh, vous avez préparé le son Shine Always, certainement, il l'a écouté. Euh, donc, il a écouté. Je commence par là. Combien de temps D'accord, voilà. la première question. OK. Euh, je le connais depuis euh, j'ai fait euh, Paris-Bercy avec, euh, avec et le Ramdan. Ah et jusqu'à présent, je travaille avec lui. Mais comment ça s'est passé pour que tu puisses faire un, Bercy avec Wally Comment Wally La collaboration. T as, t as, t as oui, la collaboration. Comment Wally a eu à te découvrir, à te connaître Ok. Donc, euh, en 2016, mm -hmm. préparait Bercy. Mhm. Et euh, Cheikh Antanjai, mhm. qui, joue Sabar ça chez Wally, il jouait chez Awadi aussi. Mhm. Et je faisais les chœurs avec euh, Donc, Awadi euh, m'a emmené là-bas pour chanter pour la publicité de Paris-Bercy. Et Wali a beaucoup aimé et il m'a dit d'intégrer euh, le Ramadan. Et ça fait quoi Wali Seck ne euh, la ah de euh, la famille. Ah, je me suis sentie honorée. <laughs> je me suis sentie honorée et surtout que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour son travail. Ah donc j'étais vraiment contente d'être cette famille sénégalaise là musicalement parlant et voilà. très que tu étais Amala, ça s'est passé comment euh, Avec Awadi, je ne rappais pas. Hein. Je faisais des, des, des, des refrains, disons des refrains, parce que c'était pas vraiment des chœurs parce qu'il fallait des refrains pour euh, les chansons, pour les acoustiques et tout ça. Donc euh, voilà, c'était plus en lead même. Donc euh, Voilà. C'est pas difficile quand même, hein, quand même. Non, c'est pas difficile. Parce que déjà, vous avez la voix, certainement, c'est une passion et tout. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec cette euh, très belle chanson de Shine Always. Merci. Est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose bientôt Oh, Daniela, elle est là maintenant dans la musique sénégalaise même. Parce que ce tube-là, vous nous l'avez présenté, mais euh, nous tous on a consommé. Mm. voilà, euh, je vis au Sénégal et je me dois mmh. d'être mmh. intégrée musicalement mmh. parlant. Donc euh, oui, je vous promets quelque chose très bientôt. Je, vais entrer en studio après la promotion de, Shine Always. Je vais entrer en studio et euh, cette fois-ci, ce sera pour euh, une chanson à coloration sénégalaise. Voilà. Bah oui, ma famille sénégalaise, c'est les Faramarènes, hein, c'est le ah, Ramadan. D'accord, donc... Euh, euh, non, mais en fait, j'ai une question cette fois, c'est pour l'intégration sénégalaise. D'accord. Avez-vous un mari ou un, un, un prétendant oh, sénégalais oh, oh, Il faut intégrer, soit on intègre, soit on n'intègre pas. L'intégration sera très facile. vous en avez certainement. ah vraiment bu ma embarrassé. ah bah là. allez allez Daniela Dino Daniela Dino Daniela allez. alors on n'a pas besoin de nom mais ça va vous êtes dedans. Eh, eh, eh, Ah, disons que j'ai beaucoup de prétendants. Ah. Non, pas merci beaucoup pour le mot. Il a dit ah. Disons que j'ai beaucoup de prétendants mais je suis assez compliquée comme femme. J'avoue, j'avoue, je suis assez compliquée. Mais Daniela aime les Sénégalais. Ah, <laughs> Pardon, les hommes sénégalais, vous, vous les appréciez quand même. Bien sûr, les hommes sénégalais, ils sont beaux, ils sont charmants. Parce qu'il y en a qui vous regardent. Est-ce qu'ils sont charmants ah. Mais les femmes sénégalaises sont beaucoup plus charmantes. Ah, ça, c'est vrai. Ça. Mais vous êtes j'aime bien, j'aime bien ce qu'elle a fait là. Parce que des fois, il faut tamit ñu génn ci budget artiste yi dugg seen couple. Ah, mais intégration, elle a parlé d'intégration. Donc nous, on ne se limite pas sur l'intégration musicale de sa carrière, mais aussi l'intégration des Sénégalais, Teranga sénégalais. sénégalaise quoi. en tant que camerounaise comment voyez-vous la musique sénégalaise par rapport à la musique internationale est-ce que comment dire ouverte d'esprit. Euh, musicalement parlant. ça veut dire que. je suis mal placée pour porter ce genre de jugement parce que j'aime la musique sénégalaise en mhm. particulier la musique de de Wally donc euh, internationalement parlant, ouais. je pense que la musique sénégalaise a quand même sa place. Mm. Elle a sa place, euh, euh, euh, surtout quand il y a une sorte de mixité entre le Wolof et le Exactement, français. Je vois euh, Wally, on l'écoute partout. Hein, au mm. Cameroun, mmh, quand je poste ah, des, des, des, trucs où il est dedans, on me dit ah, ah Wally, ah Wally, ah, ouais. Même à Paris, partout, mes mmh. amis le connaissent. Mm. Donc voilà. Ça, c'est pour ce que je connais. Oui, c'est une musique africaine mhm. parmi tant d'autres, comme mhm. le mbalak, c'est comme le ndombolo, qui est propre au mhm. Congolais, le ah oui. est propre au Sénégal, le coupé décalé à Côte d'Ivoire, le makossa au Cameroun. Donc euh, voilà, on connaît, le mbalak. Ceux qui aiment, aiment, ceux qui n'aiment pas, merci. En tout cas, c'est un plaisir. Oui, Est-ce que vous comprenez le Wolof Oui, je comprends un peu. Mais Daniela, concernant le, le Oui, euh, parle-nous un tout petit peu de ce titre, Chanoulé. Ça parle de quoi mm. Et puis votre style musical. On a tendance à voir, vous avez sorti euh, euh c'est l'heure. Il y a aussi euh, Posé qu'on a écouté, qu'on a dansé nous tous. C'est quoi le style euh, préféré de, bien sûr, Daniela Section mm-hmm. Kizomba, mm-hmm. Kabolov, Afrobeat. Où est-ce qu'on vous situer actuellement Alors, je me situe dans, un Afrobeat assez soft. disons. Afrobeat. Voilà, Afrobeat soft. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça. Hein. Et le titre, ça parle de quoi le titre, ça parle d'une femme qui dit à son homme que je, me concentre sur toi, je me fais belle pour toi, je brille toujours pour toi. Hey, eh, on brille, on, toutes les femmes brillent. toujours pour toi, Je me laisse pas aller, je, voilà, je pour toi, je suis mhm. concentrée sur toi. Ah, euh, je pense que euh, Daniela doit revenir à, à, après le ramadan, bien sûr. Mm -hmm. Sinon, euh, PNG, si vous avez une émission peut-être euh, entre-temps, mhm. parce qu'elle est très intéressante et ce tube qu'elle nous a amené, j'en suis sûre et certaine que d'ici très peu de temps, elle va nous ramener beaucoup de choses bien mixées avec du mbalar. Là, on pourra danser avec ça, mais euh, sachez juste que c'est le temps qui nous laisse pas le choix. mais on a très ravie de vous accueillir sur merci, ce plateau. Merci, moi aussi. Mm-hmm. Merci. Allez, est très contente. Merci, Alors, tu juste, pour dire que demain, vous uh-huh. allez la retrouver bien sûr dans le PNJ sur la RFM de 19 à 21h. Love you guys. La radio, ce sera une continuité donc voilà. Di on a certainement beneen invité bu fi nekk. voilà donc on enchaîne avec des divas. des divas voilà mm -hmm. elles sont de six cinq. cinq cinq, cinq, ah voilà donc voilà elles sont déjà là. si c'est bon le nouveau clip on va regarder ça. lu bees la tamit lu bees voilà c'est dédié on regarde la vidéo et on revient tout de suite. Harmonie. foog nga fekk ba keroog muy neex góorlu ma yàgg man ay cër tey mu neex bu nga jëm mu ngi fii fu la ci mat ak fit bi sax bu gëmee yàlla kon looy ragal xaw ma ko noonu la àdduna bi noonu la takkal sa sa teebul toog duma ko yaakaar ci góor julee jigéen fu la yoonu waay jógal jógal yóbbul ko suba day neex waaye bu mu ñëwee suba day jeex sa lépp sotti yóbbul ko duub te bul ko saaga Get venez venez. par là. Wow. rejoignez-nous. Eh, bàyyi eh, eh, Samira bàyyil xale yi fii waay. non non j'ai besoin. non non Samira bàyyil xale yi fii waay. venez les les les les kay leen rek ñu waxtaanee. góor ñi góor ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña. ama ñëw ama ñëw ama jàppale vous allez bien les chéris ça va. ça va bien. Ah, vous êtes toutes belles installez-vous. tey moom yéen a moom plateau bi. Ah, ah. installez-vous comme j'ai dit. ayca dañuy séddoo tos dañuy séddoo. ayca tos dañuy séddoo. tos dañuy séddoo. kaay kaay kaay demal demal nañu ca baax acca ñëw nii. c'est bon micro bi. c'est bon parce que man aw ma micro fii. waaw waaw ba tey. ñëw na wooy wuli wooy. aywa suñu wuli waay. macha allah harmonie. Harmonie. Elles sont là et ah oui. elles viennent d'arriver. Ah oui. Elles sont formidables, très bien stylées. Double euh, aux femmes, raison pour laquelle mm. Team Weekend Star ont invité bien sûr des mm. grosses pointures en mode féminin. Ah euh, mention spéciale d'abord déjà à Daniela qui vient de faire euh, le show. Ah Toujours l'ambiance mois de mars continue, mm. bien sûr, elles sont là. Merci de les applaudir encore une ah fois. Ah oui. alors Samira. oui comme yow euh, tu es à côté d'une njëkk présenté waaw wax ñu moom mooy kan. parce que bu dul dara sax moom euh, fii këram la c'est pas la première fois ñu ko fi gis. Ah. ñëw na fi indiwoon fi benn tube boo xamante ne mais comment vas-tu la petite. mais Samira tube boobu ah, ah. mi ngi ci mi ngi ci presque un mois mi ngi ci un million de vues. mais un million tey nga ak jigéen macha allah ñu bàyyi la nga nuyoo vraiment plaisir la ñu am li dafa neex ay jigéen. macha allah ñun dama bëgg di ànd mais ah, Rama alors maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am contentement encore une fois di di participer émission bi ak yéen di nuyu sama xaritu ñaawul yi ma àndal di nuyu sama famille wa Médina di nuyu képp kuy béggee Ouly c'est comment c'est comment pour les téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui votre nom votre nom. Ouli c' est Ouli. Euh, ak ñi dama leen di wax lu neex ka. dama damay ñëw ci moom. kay rek kay rek kay kay kay rek wax say jaar jaar. dafa am xale bu waane ndax dafa stylé. macha allah teg ci mu am une voix particulière voix bu douce waaye ci son wu bi mu wëy euh, sama jonge. def na 1 million 300 vues uli ñëw rek commencé songu un million yi ah. ah oui macha allah. ba pare mu ñëw dugalaat li nga xam ne mooy gën leen a leew uli jëlal ñu micro nga defaral ñu gën leen a leew waaw parce que moom man dama demoon ba mu andi woon. gën naa gën naa xeew uli defaral mu gën leen a leew. xam nga way bi eh, ñu ci bari ñu ngi naan ma parce que commentaire yooyu dama koy gis. Mm-hmm. kii lu tax simple lu tax du wax normal lu tax lii mënoon naa ñëw ma ne. a mais affaire bi day jaay boo nekkee artiste des fois da nga war am tuuti cas booy dégager bu particulier ak moo tax bi mu ñëwee dama ne. gën leen a leew sama chéri ko laal ma def la neew. macha naa bus bi xew kii dama ko ne ca fu sori te xale du ko jaar. kontaan nañ macha allah Aïcha ñu bàyyi euh, la team les femmes euh, Toch euh, bàyyi ñëw suñu micro parce nekk di waxtaan. comme journée de la femme bi rëcc nañu démb moo tax moo bëgg a favoriser tey bàyyi leen fi nga xamante ni ñoom mu nekk groupe bu nice aussi on vous laisse d'abord vous présenter d'abord. bon salaamaaleykum bu baax a baax. di leen bu baax. xëy nañ la di kontaan fekk la fi wax dëgg yàlla. waaw tey lii bu ngeen ko see xam ne yëfu jigéen la. dëgg la mhm. parce que dañu euh, su ma waxee dëgg ci projet bi dañu xamante depuis loolu. Mhm. ci groupe WhatsApp yeeg yooyu noonu organiser benn groupe WhatsApp ci la ñuy nekk di waxtaan genre yooyu. Mhm. léegi idée bi ñëw pourquoi pas may nuyu Sophia ak Kin Kin dañoo waroon ñëw mais dañu am empêchement. kenn ki muy Sophia mu ne mais pourquoi pas ñu def benn son. Euh, ci 8 mars bi. Mm-hmm. mu ne waa d'accord nañ ko wax best xool ba xam. Mm-hmm. wax ko ko ndeysaan mu mu yombalal ñu ko loolu. ak mm-hmm. yàlla yombalal liggéey bi. ñu yaakaar ne foofu lay yem mu ne noonu yom fii il faut que ñu defal leen ku nekk benn son. mu ah wax ci jigéen. macha allah mu nekk album. macha allah te moom moom ku ko gis moom mooy Satounia nekk une jeune et ravissante artiste ah chanteuse. bokk ci xale yu ñu gën a ràññee nag ci musique sénégalaise par le biais de sa belle voix. def na ay hits comme bi nga xam ne def na 1 million 300 vues. Ah ak benn featuring bi nga xam ne def na ko ak El Maestro def 4 millions 900 vues macha allah toi mooy Satou ah. mooy waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi ak ñëpp ñi ñuy seetaan à travers bienvenue sur le euh, mm. mm. moom ndaanaan la ndaanaan la la ba pare baat bi dafa neex baat bu extraordinaire la yor. baat boo xam ne bu wëyee. bu wëyee dama ragal fii di tremble. ndax en am na ko ma message na ma Kia dafa yàgg ba lu gis nga nee nañu waaw elle a une très belle voix. macha allah. Kia kenn du yow gis nañ liggéey bu ci Kia loo ñu ñama sa borom. moom. ñi bàyyi leen seen yaa bëgg ca laale. ni laale mooy baaxu góor bu doon lambi jigéen sa na ni aaye lamb bu ca ko nekkul jigéenu kuy moom. wallaay dëgg la macha allah macha allah macha allah. mais Zébé il est dangereux. ah dangereux nag mën nga tànn nag. ah Satou moom moom kii la ba pare ah. man ci man mi dama xëy nekk ca yaay dafa kontaan ci man mi lay bul neelaw di ma jéem a galgal da ngay suul maaraw bala gay jabi giw bi damay songu daal day focus nekkal ci li nga nekk focus allah dama bëggoon nga focus rek. ñu jàll ci loolu daal lu ñu woon ñëpp tamit ñaar ñaar ci suñu bébé bi moom fan amoo ci àll bi parce que groupe bi ñoom ñëpp. borom réew bi layu picci bu doom yi màggee doom yi màggi at lii sa yaayu liyu géej béy na leen hmm. lekku du ma jigéen bayu faal ak karni biraay ma jigéen bayu faal maya faal mayu faal ma kooto ma ah. ci ful cuur borom ah. la yóbbu ci leen ndeysaan sont magnifiques elles sont magnifiques je sais pas The ah, Best dama may wax ak The Best directement kenn ku ci nekk euh, wane nga li nga xamante ne mooy sa talent The mm-hmm. dama lay dénk ñu mm-hmm. jigéen ñi mm-hmm. macha allah nga tegal ma leen ci yoon bi ay Viviane ay Kumba Gawla ay Aïda Samb rek laa fi dégg vous avez bu ñu demee ba ndaxte mi nga xamante ne seen petit gaale la nekk approuvé ko yéen ñi seetaan xam naa ne tamit yéen a ngi la c'est à féliciter seen son bi ñëpp apprécier ko en girl power. Mhm. ndaxte girl power moo nekk ci ci Soraya. moom elle était accompagnée d'une noire sur l'ébène je pense. Euh, di nekk duo de deux filles très talentueuses. c'est le faxastalu euh, de Ndaxte en direct. c'est à noter le faxastalu de Ndaxte gis nga àq baaxul. nit euh, teel duo de deux ravissantes filles très talentueuses nekk ci The Best Production. macha allah dañoo génn dañ dañoo génn rek laal million de vues bi parce que gis hmm. nañ ni que bi ngeen génnee seen son ñooy jaay. Hmm. def na un million six cent vues. Hmm. macha allah c'est à féliciter moom ak euh, Noir sur Débét bi ñu leen di def un gros bisou. ah oui c'est à féliciter. comment il s'appelle yaa def cover. aérage. yee ça m'a marqué. la bëgg Mariama. non loolu dama déglu tout le boobu boo may loolu. Animals than human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want your. e no finish dem won't fight oh if dem dem no fit catch oh i no dey form say you're too right oh no come dey form say you're too right oh me no get the time for the hate and the bad energy come on mind and my money make it last like broccoli steady green like broccoli City on my grind away, I don't tell me coming by my fantasy. No way check if my love is no love. But you get rush, you get rush way when you be more. Nobody make my job in the rush. It come on if it all. Yeah, but you get rush. It a rush way, way, live more. No, the high, baby, body, the close. There's no glory with us. oh là là la bi. waaw ba pare mu def ngiwul mu def ci fin bi. franchement c'est touchant. elles sont elles sont formidables. macha énormément euh, harmonie groupe bi ñu indil nii sincèrement ak ki nga xamante ni mooy Daniela mais certainement tu as dire par rapport groupe jigéen. ah lu toll ni 8 mars nga indi leen invité leen ci li nga xamante ni mooy Weekend Stars certainement tu as un mot pour. voilà donc moi moi tout d'abord je remercie je The Best ah. The Best mu ñuy seetaan euh, actuellement. donc moom moo ngi def euh, job bu nice tamit di coacher xale ah. yombul tamit notamment des jeunes demoiselles des filles di leen wax euh, congratulation voilà job bi nice na it bi nice na ba pare cinq yu ñu cinq si clip bi ah, c'est énorme c'est énorme machallah c'est énorme voilà man rek leen laa bëggoon ma may leen après benn bit rek ñu foo ñoom ñëpp. ndeysaan ñu waxtaanee ko waaw balaa loolu rek kon nañ leen laaj puis euh, seen i projets à venir certainement. alors il y a ils sont au nombre de quatre qui viennent de se présenter. Mm. mais le groupe il paraît que il reste deux autres personnes. comme il l'a dit sénégalais yi tamit euh, xam ne euh, tey y en a deux qui manquent aujourd'hui te deux yooyu nga xamante ne manqué nañ aussi ñu ñuy seetaan j'aimerais aussi nga seen tur yi nan lañ. Sofia et. Kinkin Kinkin Kinkin. Kinkin mooy ñooñu nga xamante ni mm, temps ñi nekk laa tax dañ daan daw jàng. Mhm. bu ñëpp ñëwee ñoom duñ ñëw. lu dañuy retard wala ñu daw jàng. en tout cas c'est à encourager donc euh, ñu bàyyi leen euh, ngeen wax seen i projet c'est magnifique. de femmes xam ngeen ni que c'est pas facile parfois. combinaison bi di am ak accord bi. ngeen def clip bu mel ni sañse yi on en parle tout ça donc vraiment ñu leen ciy féliciter les projets à venir peut-être yu ñu mën a xaar très bientôt. avec The Best aussi ñu koy remercier ci liggéey bi ci jàpp ni ayca ku mu neex. ku mu neex ku mu neex yéenay xool rek. ci seen i projet euh, genre du groupe compilation la rek. absolument pour ay projet ah. mais ku ci nekk am nga sa carrière solo. Ah, bokkuñu label tamit man ak Sofia kese ñoo nekk ci label best. Ah. ñeneen ni ku nekk da nga am sa label boobu. Mm-hmm. dañu toog waxtaan nii rek ñu wax best mu defal ñu son après mu ne xaaral def ko projet bu ngand. Mm-hmm. def ko album. mbaa du am ay tendance santé yooyu noonu. non non suñu label ñoo gën a ay seen label. morceau bi di ñëw suñu label lañ koy defee. coow yi commencé non mënu cee ñàkk rek mais. Ah, dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy dëgg. dañuy waxtaan dëgg la yàlla bëgg. dañuy waxtaan rek. Mhm. waaw waaw. jigéen. Mhm. yoo gis ñuy ànd. Mhm. xuloo dina ci am. mënul ñàkk. mais après dañuy xoolaat xoolaat suñu biir rek mu rafetaat te ngeen di parce que tamit bu fekkee dañoo bëgg a def projet mhm. bëgg a def lu rafet ku ci mhm. nekk day am sa idée ah waxtaan la rek ba pare li ñuy may chance sax ñun dañoo filante suñu biir mhm. ah moo tax kenn kenn du bëgg mere sa morom voilà bu ñu mën a xuloo dañ koy xeex mu jeex ah. dañ ko dóor dóor man de ma sànni ko ci rek xam naa ki leen jiite moom jobes euh, doxul dara ci lu ñàkk fay te aussi bu leen jiitewee rek du nangu ngeen def yenn yi bien vrai que ay jigéen lañu. Mhm. mun na am loolu mais loolu yëpp état d'esprit la. Mhm. Euh, loolu tey moom moo leen mën a may ngeen nekk benn. Mhm. tey damay ñaan yàlla yéen ñëpp bokkoo leen label mais ngeen dem ba bokk benn label bi. Zbest nekk seen kanam parce que bu Zbest bu nekkee sa kanam nag ci kanam rek ngeen jëm de. man loolu laa gis Zbest jàpp ci parce que lii nii déjà dafa neex trop ak son bi ñu génnee nii ñoom ñëpp ku nekk wane sa sa voix ndaxte tu vas pas si côté boobu ku nekk nga gis ni que am na euh, li nga xam ne mooy style musical bi ku ci nekk tamit am nga sa wàll maanaam kii mi ngi wayee ci tempo bi kii di wayee ci tempo bi donc the best euh, je dirais plutôt nga jàpp ci ah parce que lii nii déjà mi moom moo doog a xamal ni que bokkuñu label mais lii je trouve que c'est un projet boo xam mhm. a sax di sax parce que c'est très beau exactement projet buy continuer la parce que ñoom ndeysaan elles elles sont très talentueuses ah ba pare ku ci nekk bu wëyee nga ne nga ne nga ne ah ku ci nekk foo benn bit ku ci nekk am sa tuuti loo ci sànni ndax dama leen gis yenn saa yi ñuy toog di foor mhm, Sénégal lañ nekk vidéo yi dañuy dugg TikTok dañuy gis ah ñu ngi leen di fi maa ngi like maa ngi dugal ami mhm, ah ñu def loolu Mr Dji Dji boo amee ñu may oui oui euh, si mm. euh, euh, nekk génne nga benn son ñun ñu yokk si benn son boo xamante ne c'est un son collectif en war a génne benn projet benn projet boo xamante ne euh, l'album la. Talatay Nder. Talatay Nder. album la album. waaw talaatay neex la ci nekk sa titre moo ngi kon yeneen a ngi préparé benn clip boo xamante ni di ngeen dajaloo seen biir daal di taal seen bopp. album comme ni ko jigéenu talaatay neex defee bien sûr. waaw eh si c' est bon may rek ñoom ñu xamee ko comme ñi ngi ak micro yi yooyu. ñu ñu ñu boucler ko en beauté ah. ati ji bu xaayee rek ñoom la. ayca waaw vraiment kan kan ngay woo si ñoom nii yow koy woo. Bourous. ¿eh? ah Jide mi ngi woote yéen en direct yéen ci émission bi Keur Sané. ok célibataire la tamit ji moom. ay man tamit aywa ma may la ay vite. nañ ko may on en profite ji avant ngay kii ñu ndaxte. on te laisse nga tàggatoo ak téléspectateur yi. et merci hein, pour ces investigations ces recherches doo sonn macha allah. merci maa ngi remercier képp ku toogoon këram di ñu seetaan di remercier big up à samay bàjjan ce sont de braves femmes. maa ngi bu baax sama maman d'amour maam say ndiir maa ndaxte moi bisous à vous. ayca ñu bàyyi leen ñoom ñu continuer. ayca euh, fii suba suba tàggatool. jigéen la maa ngi tàggatoo. waa maa ngi. waaw yow am nga sax ay événement fi mu toll nii nga ay événement de. nañ ko pëtëxal xaj na ci. nañ ko pëtëxal ah, Pape Samba may ma loolu événement yi après ma tàggoo walaa mm. kan jàllo welmans ñu fere euh, Radisson Blu dem mm. leen ngeen def seen consommation kan jàllo bégal leen. Mm-hmm. noonu ca Radisson Blu. le neuf incha allah. au suivant. au suivant waaye ñu ngi. au suivant. léegi euh, sama sama jigéen ñi. Eh, loolu mën na ñëw xaaral ba euh, kii dégg kii jàll. Ah, ah, ah, Yoro Ndiaye ah. Yoro Ndiaye lii démb la amoon euh, fële ca Radisson. da waaw Women's Day sargal jigéen la woon. Mm-hmm. waaw waaw Momo Dieng. allahu akbar. xeexe baag bi Momo Dieng tey COP21 dina ko dëbbati ba mu mokk. Mm-hmm. loolu de amul réservation nee nañ ko njëkk a jiitu yow yaay toog ci kanam. jeex na waaw nag wax dëgg neex yàlla nag. nañ kon nangul ne yéen moom fi mu toll nii moom guddi yi ay guddeem la. jigéen fi niveau bi toll moom boo mu ñaaw de lu mooy ba pare moomu jéem xamul tax mu a neex. diggante 17h 22h ku ne tasaaroo. yaa ngi dégg. 17h22h fële ci COP 21 tey la tey. Aïcha Alioune Mbaye Nder moom ah, samp Alioune Mbaye Nder aussi. doctogramme Nder Aïcha voilà lii lañ ci amoon. lii lañ amoon donc. macha allah maa ngi maa ngi maa ngi gërëm ñi ñu doon seetaan. Mhm. également di gërëm suñu invité yi suñu jigéen ñi nga mhm. xam ne ay jàmbaar nañu ci seen waar. Euh, di gërëm sama yaay bu baax ak ñoom Tata Kine Saw waa mhm. groupe Pikine démb nga xam ne émission Weekend Star rek lu ñu bëgg. bu commencé rek mairie commencé audio yaay wàññi audio yi. yaay def émission kenn du ko fi def def émission lu may audio. <laughs> kontaan naa ci yow. love you maman. merci. waaw man moom je tenais à féliciter ces dames euh, ñii ñoo wax dëgg fa yàlla blague à part dañoo nekk ñoo xamante man man laa damay déglu ay way yaa ma gën a xam am yi ku ko xamul dégg nga ko la femme dobre mu nekk di way lu neex kii comme ni kii ni nga ko waxee léegi léegi 4 millions de vues kii sama séddoo la vraiment Oly maa leen di wax sapo bu leen déglu sama genre yi di leen jaxasee geen di xuloo di histoire non non ànd leen ngeen liggéey musique sénégalaise ah, ah. seen loxo la nekk ah, dañ war a def lu extraordinaire jël musique bi yóbbu ko foo xamante tey jii nii man am naa ci yéen yaakaar mm. que les ni wallaay blague à euh, at bi yëpp damay tooñ at bi yëpp damay tooñ maa ngi baalu ñëpp àq lépp loo xam ne def naa ko bëgg mu neex la sañse bi nag tey disco ñaa moo fi jaar officiel dal yi ci suuf da ngay dem fi nga xamante ni moo di Kolda Marwan tu ah, ah, ah, la dinaa la spécial incha c'est prévu le 23 mais balaa Ndiaye bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu meetingee nga xamante ni off bi 23 amul meeting amul dara ma invité leen Kër Massa ñu ndog ndog ñu am solo incha allah rabbi itit ba lay amee c'est itit ba yaay tëjagoo maay tëj. bonne fête à femmes du monde entier en commençant par maman une bonne fête. ku nekk bokk na ci daayira gi. Hmm? yow faq salu fii man ma faq salu bonne fête des femmes à Fatima connectée depuis les USA avec ses jumeaux bien sûr Fatima Silla bien sûr Weekend Star bi mhm. yow yaa ko moom tey yow laa may mention spéciale à toi Fatima la diva Euh, ji yow de booy euh, mixé rek ngay tëjaale incha allah dama lay teg sa loxo dama bëgg ñu def ambiance man nag man nag xam nga liggéey bi bu baaxee euh, dañuy jàpp ne man la wala team bi les les hommes de l'ombre tey moom wax dëgg yàlla Pape Samba Thiam mhm. teg na remerciement bi sa loxo waaye duma ma fàtte s'il vous plaît du ma mhm. fàtte benn yoon ki nga xamante ni mooy Eva Gomis nga xam ne liggéey bi bu baaxee moom la di sargal ñi nga xamante ne ñooy ñoom madame ba mhm. nekk Almadi vraiment Aïssata des femmes Magui Coulibaly ay ay ay Adja accueil des femmes braves ak suñu yaay yi nekk suñu kër ñu seetaan képp kuy jigéen rek ak foo mënti nekk Dakar diaspora Sénégal fépp fu ngeen mënti nekk rek man Samira Coulibaly jox naa leen loxo di leen sargal di leen wax ni que yéenay jàmbaar donc ñu ngi leen di jaajëfal di remercier tout simplement ñi nga xamante ne ñooy ñoom Pape Jean mhm. ah, les techniciens Pape Lay et tout ça Zege Marega maa ngi remercier ñëpp dama kontaan ci yéen parce que bu liggéey bi baaxee ñoom la ñun dañoo taxaw ni pour Pape Jean photo waale may reetaanale ndeysaan yàlla baax na ay tëjee su baaxee ñu dem Aïcha gaay oh. yëngal yëngal Aïcha Aïcha ji may ñëw si tey mu neex booyal te mu ngi fi sax bu gëmee yàlla kon lay ragal noonu la àdduna bi noonu la takkal sa sa lii di doo sa gaaw su munul neexal bul ma jàngi jigéen la jigéen la jigéen la teel ko lingéen la jigéen la jigéen la jigéen la jigéen la jigéen la jigéen la jigéen la teel ko lingéen la suba day neex waaye bu mu ñeeni suba day jeex sa lépp sotti yóbbul ko duur seen bopp teral seen borom kër teral seen gan. ñu ñaan yàlla dugg si koor gi si bisimilah rahmaani rahim ñu ñaan jeexale ko alhamdulilah rabbil alamin ay def nicmatu rabbika laa yuminuun salaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu ci biir Sénégal ak ci biir Afrique ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu am na lu rëy lu xew lu ngeen a na nag Grand Prix Sénico ànd ak bi ëmb daara Sénégal yi di ci sargal alquran waaye di ci teral alquran waaye di ci ñoñ ñooñ alquran waaye di ci suqali daara yi mooy bis bi nga xam ne ku dégg